jàmbaar. maa ngi jàmbaar. waaw comme tam rek sant yàlla. yëpp dajaloo waaw comme tam ñaan yàlla jëm si bis ba rek Assane tëgg xam nga tëgg lu neex lu ne. waaw moo tax nag ñaan yàlla yàlla may ñu ndam waaw. adversaire. waaw adversaire adversaire la comme tam rek. mënut a weesu adversaire. ñu bari lañ koo soxla woon yaa ko laaj. moo la laaj. wala promoteur moo la ko proposé. non sama ménageur yi làmb boole. làmb rek la ñu du leneen waaw. Mataar Ndiaye moo jël combat. ah mooy Mataar Ndiaye moo jël lu nekk. combat am. combat la. Mataar Ndiaye du man maa bëre làmb ji. mais li wax dëgg la ambulance ñi ko soxla woon bari nañ am na mbër yoo xam sax xëy na ñoo ëpp tur yuus ci làmb. mais xam nga Assane nag fan la wuteeg yenn promoteurs yi mooy combat bu bu ko yàlla xiir ci moom daan yàlla da koo xiir ci Yuusu adversaire boobu da koy da koy jaral moom day jaayante pour décrocher ko loolu mooy fooru Assane moom moom combat boo xam mbër moo xam ne yàlla xiir na ko ci yow moom day rayante lépp adversaire boobu da koy décrocher ak lu a jar nag da jaral mais bu dee mbër boo xam ne yàlla ko ci yow nag soo ko mee sax moom mooy moom voilà moo tax amoon na ay adversaire yu ma doon ciblé yu ñu ma doon citeel mais man maa euh, comme ni ko waxee ñëpp a bëgg ba rek moom am na mbër yu raw yu ci làmb fuuf am na mbër yu daan yuusu sax ñoo xam ne bëgg nañ ko li ma xam naa ko bu baax waaye nag na yàlla ci nii la ko dogal ndax Assane daan la ko yàlla baaxee waaw ndax ambulance ñi ko doon wax ay mbar yoo xam sax ma naan ñoo ëpp tur wala daan nañ sax yuusu ndax man am naa ci lu leer lu leer lu leer man xam naa ci mbër yu bëree bëri bëri yuñ ko proposé yoo xamante ne vraiment buñ ko bu leen jëloon ci làmb jaadu na lan nga yebee ambulance ba jël ko. déedéet non ambulance la ñuy waxee lan la yebee Youssou ba jël ko. Oh, waaw non non ambulance dañ ko proposé. làq doom dóor non non xam li tax may wax. dañ ko proposé yoo xam ne man bu dee ci làmb. ñu ëpp tur Youssou. Hmm. na si ñoo xam ne daan nañ sax Youssou. te ginnaaw bi ñu daanee Youssou léegi gisaguma seen defet. kon su wëlbati ko dem di jël Youssou kay da naan lan la ambulance yebee Youssou ba jël Youssou. wala xëppate nag Assane na day ndaanaan xam naa ne ndaanaanu Assane Diarra ko. Thiès. dàq faa bëre nekk champion nga jol ko. waaw ah, man tamit man tamit même chose man tamit ndaanaan la vingt combats ko ko bëre ndaanaan la seize victoire waaw. nan bi bi bi bi ambulance di dégager ci làmb. waaw bu ñu dajee day neex day gaaw libéré amateur dem ñibbi. te ñëpp xam nañ daa mën a bëre. mën a bëre mën a xeex ñaari plat boole man. la gën a mën a. ambulance ambiance te ambiance rek. ambiance waaw. kese kese. mënul xeex. non xaw ma mais man sama bopp laa xam mais. mënul bëre mënul xeex man sama bopp laa xam. yaa ko dàq bëre. maa dàq bëre ma dàq xeex maa lépp maa ko dàq. yaa gën a neex maa mën. <laughs> xaar jaay bàyyi liggéey def waay. non ñoo mën fuuf wax dëgg yàlla. yàlla xam ne ñoo mën. waaye yàggatul incha allahu rabi. armé la mujjee bëreel fii Dakar. non jël revanche daan ko jël bu rëy. armé dañ kaa jox sama avance bu sonn bu bañ Mataan Ndiaye nii kon du man maa maa armé kooku dama xaar tëb waaw. Mhm. kon nañ la xaar rek. waaw si kanam.